bàyyi nga nuyoo euh, bi duñu ko teg ba mu jàll te ñu ci waxtaan ma bàyyi la nga nuyoo ba pare fi ñu toll nii. waaw bu mën nañ caa dem. waaw waaw ginnaaw bu ma nuyoo waa Caaray euh, nuyu waa Yëmbal euh, nuyu ñi nga xam ne ñooy bëgg Mamran di ko safoo saa su nekk di wax ne émission bi émission la boo xam ne ni ma ko waxee rek ñëpp ngi toog seen télé di ko seetaan parce que dafa dem ba bokk ci doomu aadama yi mu doon loo xam ne ni ma koy waxee rek li ci mbedd mi rek la ñuy teg fii. mën nga cee xaar lu nekk nag waaye am na ci lépp am na ci lu ne am na ci ngir dindi stress doomu aadama yi parce que foofu la réew mi toll may nuyu béti euh, di nuyu abaa mi nga xam ne sama diggante moom euh, du man du moom yàlla la yàlla moo ñu boole mu doon loo xam ne bu ñu defee dara neex askanu wi yëpp lay neex ndax fu ne ana maam raan rek ne ana abaa loolu mbiru suñu boroom la di wax ne yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu jugee nag ci loo xamante ne nii euh, muy tamxarit yaakaar naa mu doon bis boo xamee bis bu neex la waaw su xéwal la waaye na ci yow de. waaw ma Talla Thiam maa ngi bu baax maa ngi en direct à la télé. Euh, sa yaay. Ndeye Thiam sa rakk Fama Thiam sa papa ak ñëpp leen nuyu nuyu ma seen waa kër yëpp Thiam maa ngi en direct. xanaa loolu war na kaa dégg de. waaw loolu moom bu ko déggul ne daa tax. waaw a waaw Aba. bis la boo xam ne euh, man ci dernier moment la ma cere doog a jàpp. waaw ma dem naa ba ba ba ñëpp génn stade bi ci la ma euh, cere di doog a jàpp. fekk na victoire ba ñëpp waaw meew la daaw ma ko waaye ah. meew. meew parce que meew kii lan la lii rek. meew waaw. moom. ah. <laughs> nga dem xool. waaw ma dem partie bi jeex. waaw moom dafa ma dara ma mbaa maa ngi moom jotam dër bi bi ma yeewoo ba nu salaatu ba pare ci la ne ma comme yàlla dogal na ci la sibile waaw ci la sibile boobu ci la bi ba ñibbi seen waaw ma cere di tëdd waaw waaw cere di tëdd mu jug booy bële ma àndal ba esan dal naka biig bi muy vocal laa naka sa vocal bi bëri na air te seen waa ko tëdd na boo mënee woote ñu am ku toog si bunte néeg ndax ni ngay woo ni ngay waxe ba esan yërëm naa la de ar bi mënuñu si yóbbu kamba am na ñu bëri ñu nekk kamba démb non mais mu naan ma ne kat Ba Assane yàgg na tëdd. mais moom. waaw en tout cas ñu ngi baalu àq ñëpp. waaw ñu ñëpp àq. ndeysaan ndeysaan. mu nekk ci at mu bees. waaw yoo xam ne moom la ñu dugg yàlla na ci yàlla def ay xeeti. ndeysaan xéwal yu baree bari. balaa ma ciy avancé sax damay seet sama waa ji euh, dafa voyagé woon ca Maroc. Mm-hmm. yàlla daal di ko fay teg nat mu def fa benn choc. Oh. mais euh, Wally Seck mais sant yàlla bu baax liñ ci xalaatoon yëpp euh, vraiment amu ci. Oh. dëgg la am na ñu ci blessé mais moom mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax donc waaw ñu koy ñu koy wax àdduna yëpp parce que bi ñu xëyee woonte nañu ba waxtaan mm-hmm. mais mu xamal ni na ñëpp na seen xel yi dal mu ngi sant yàlla peut être ñi blessé foofu la mënul bàyyi foofu mais moom mu ngi sant yàlla bu baax a baax wax yëpp nag ambulance bi ñëw ak oto bi këppoo ak yooyu yëpp nañu ko arrêté te xam ne amu ci am na ci mhm. mais vraiment euh, mhm. moom mu ngi sant mhm. et que nee na na ñëpp xam ni moom mu ngi sant waa ñi bëgg ñi ay vie la aba ñi bëgg vie ñoom nu mu amee vie rek lañ koy waxe waaye nag bu mbir amee nañuy xool ni mu amee rek ñu waxe ko ndax àddina euh, doomu aadama bu fekkee dafa nekk ci am ab dëkk am ñu bëri ñoo xam ne dañ koy béggee amee lu dal ci kawam na nga xool ni mu ni mu gën a sedde nga waxee ko noonu ndax am na noo xam ne soo ko waxee ñi nga xam ne ay soppeem lan du ñu nekk ci jàmm waa dañuy tiit fitna boobu nga leen di teg nag day doon loo xam ne day metti mm. abaa bu boo duggee foofu ba génn fa rek damay jaalee ñi nga xam ne ñooy axlu bi ndax danoo ñàkk tey koo xamante ne nii démb mooy euh, papa xalif euh, euh, mamran maam Alassane doon rakk ci bas ak Mamadou lamin doon koo xamante ne nii tey jii ci axlu bayti la bokk ma koy jaale laayeen yëpp waaw maa leen koy jaale bu baax a baax a baax a baax xam naa ne incha allah suba dinaa fa dem bu soobee yàlla. maam naan soo bi nga xam ne moom la teg léegi moom Youssou Ndour dafay way loo xam ni ñun du ñëpp ko bëgg. téléphone ñun ñëpp koy utiliser. par yenn saa yi da ngay dem ci kër. gis maam daan ñëpp sëgg kenn di waxtaan ñëpp seen téléphone yi la ñuy sëgg di manipuler communication amatul ci famille yi mu way ko ëpp na fukki at tey ñu ñëw application yëpp ñëw mm-hmm. TikTok Snap ñëw mm-hmm. Instagram ñu gën a occupé ci sunu portable yi maam son bi tey bu ko dee tas ci une minute ana loon ciy wax waa li ma la ciy wax mooy Abba kii dafa nekk nit koo xam ne ci réew mi la dëkk waaye ñun damaa bëgg ñu gën a gëstu kan mooy Youssou Ndour ndax wax way bu déglewul yeetewul rek ay naxaate la mhm. te way na loo xamante ne ni tey euh, ñu moom la moom la ñuy dundu léegi mhm. ndax démb bi téléphone ñëwulee waxtaan amoon na jëkkër ak jabar dañ daan toog di waxtaan ëtt moo amoon nit ñi dañ daan toog ci penc yi di waxtaan buñ musaana añ ba pare ci penc yi lañ daan toog waaye bi téléphone ñëwee ba léegi garam place boo dem kenn ku ne du am sa jot ak morom da nga ciy sëgg ma sëgg ci da ngay jekki rek waa booy ñu def noonu yow def noonu boo siggee sa doog gis da ngay jekki àgg na këram bu yàgg ndax yow booba yaa ngi sa téléphone kenn amatul jot ak kenn kon donc bu ko woyee yàlla dogal muy dem ba toll ci jamono ji dañu koy delloo li nga xamante ne rek mooy ngërëm di ko wax ne que yàlla yàlla defal ko jàmm suñu borom dëgëral ko ndax nii la way di jariñ waaw am na solo bët bi lu woy nga teg ci sa bët. suñu bët ndax nag nee naa la waaw live TV waaw bilaay ndeysaan xaalis mm, bilaay dëgg lu woy daa am jaay woy na lépp lan la woyagul woy na ba woy boo sonnee wuy wuy sama ndax na sax Sénégal rek te moom fu mu dem day yóbbaale drapeau Sénégal macha rek lañ koy wax di ko ñaanal mu gudd fan loo bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ko jox balaa ñi dara suñu invité yaakaar naa ne programme bi tey xam nañ leen mardi culture la ñuy waxtaanee bu ñu ne culture ne euh, li nga xam ni moom mooy rire bu ñu ne culture ne euh, li nga xam ne mooy art bu ñu ne culture ne la musique la danse lépp rek waaye tey yaakaar naa ne dañoo focaliser wu ci li nga xam ne mooy one man show. waaw tey waa foofu lañ taxaw. Euh, yi xam nañ ni Abba Show mu ngi ñëw mais xam nañ ni am nañu mag. Mhm. ñoo xam ni ñoo xàll yoon bi. ubbil ñu ñeme seen fierté ñu am leen ci plateau bi ñu ñëw toog waxtaan mais man sama invité la mais du man maa koy accueillir damay bàyyi euh, benn ci ay élément om mu ñëw accueillir ko parce que élément beeg may brief naan ma bu grand bi ñëwee na ngeen waxtaan ci lii waxtaan ci lee ak ma ne ko comme yaa gën a maîtriser lii yëpp grand bi suy ñëw yow indi ko bu ñëwee ba toog nga ubbil ma ba mu ubbilee ba ñu dugg après man bu ko defee mën naa continuer waxtaan ak grand bi waaw waaw waaw <laughs> waaw ay te 88 628 20 20 88 628 65 65 88 676 05 05 grand Babacar maa ngi lay kontaanee ah mon ami grand Babacar maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax yow tamit yàlla na sañ jàmm yàgg grand la bu am ful la maa ngi seetaan benn extrait ci benn pièce Euh, mu ci ñaani moom la ñu war a may mais mu yóbbu ci arrogance boo xam ni ak maanaam xeetu indiscipline grand nga baal ma mais ci rôle bi boo xam ni mu ngi wan ne ñi am xaalis yenn saa yi dañuy naqare utal kilifa du ñu am kilifa ñoom ñooy yilif seen bopp ñooy yilif kilifa yi parce que ci pièce bi genre dama ko seetaan nanga dama ko seetaan ba mu jeex mu ngi ci wax lu garaaw mu ngi ci wax ki mu bëgg. li maam yim ci def. sama soxna si. bokk na ci soxna yi gën a seer ci réew mi. li ma def koon manque de respect ci femme. grand bi mu ñu koy wan. tonton bi ko ñaanal. mu ngi wax tonton moom bu ko ñaanalee war na koo ñaanal parce que tonton bi moom xam na moom xam na. moo yor tonton. waaw a waaw waaw. bi mer daal di jug dem mu ne ko sama mpaañ ku réew la. ah moom waaw waaw waaw ah, ba pare ba pare di sànni taraak ñi mu ñaan si naa leen am na kilifa yoo xam ne matuñu kilifa ndax kilifa yuy bàyyi seen soxna fi dem topp ay xale yu ndaw waaw ma ngay wax ak garaaw yoo oh, <laughs> li ma ciy jàng mooy ah. euh, maanaam yow da man li ma ci jàng ku yor waaw ku yor mm-hmm. te amul xel parce que bu nga boo boo yorulee mm-hmm. maanaam mën ngaa neex a ilif waaye bu fekkee ne da yor ba pare ñu ilif la loolu éducation moo koy def parce que doomu aadama dimba da nga daan fayee ku ñëw jox ko sa pap mhm. léegi amatul ah jama waaw de <laughs> fi ñu toll nii moom boo fayee ko foog jox sa pap mën ko takkee sax nag sa gel waaw <laughs> gel ba nga bëggoon ni mën ngaa mu dem takk gel ba faf yow nga xool ah, ñaari naqa xam nga ne am na ñoo xam ne seen i jabar xaalis bi leen bàyyi seen i jabar ah. nanguñu leen am na couple yoo xam ne da gis xam ne xaalis bi la xaalis beeg bàyyi kan ci waa ji am na kuubul yoo xam ne léeg-léeg nga romb 4-4 yoo xam ne jonga ma nekk ca ginnaaw borom 4-4 ba nga wóor na la 4-4 bi fi bàyyi ndaw si dëgg la de dëgg kuubul li nga xamante ne dafa ne ci réew mi loo tax gis nga te dëggal la ko dafa bari loo tax gis nga chaque euh, lundi ak mardi ak mercredi ci wàll yëpp nag waaw culture ci sport Euh, ci actualité ci ay faits divers yëpp mën nañu am invité. waaw ñu ñuy waxaat ci àdduna lu bari. àddina waaw parce que pièces yi ñuy joué nii. waaw ñu teg pièce bañ cee wax rek. Mhm. nga xool ci pièce bi mën nga mhm. cee jàng. Mhm. lu baree bari lu baree bari. am na ku ne ci ligne bi. ndeysaan ci ligne bi ay ca 88 628 20 20 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 06 06 Djibi Diop Baye Fall propre Ablaye Gueye maa ngi leen di kontaanee bu baax Idriss Cheikh Sarr yal na alo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. ana Sira Ndoye. yow la. Sira Sira Ndoye. moom day yokk fi mu nekk rek wala yéen ngeen yokk fi ma nekk. ah. yokkal leen man na mel ni. meer ba nekk ca ja fee. ki yokk laa de. allo. ca jasab. mel leen ni ku ne jasab allo. allo. noo def. ça va bien. yaa ngi am jàmm. sant naa bu baax. doo tudd. maa ngi tudd Sirène Ndoye. yaa ngi sa tur bi xanaa da nga. noo tudd. maa ngi tudd Sirène. Sirène ah. Sirène. Kia. Sirène waaw. Kia. loo wax la yàlla bi si ni la tuddee rek. ah dëggantaan Kia rek. Sira. Kia waaw. ah Sira Mbodj. Ndoye. Ah? Sira Ndoye Ndoye. ah ku ku na wax sa tur. aja euh, ana fooy wootee nii. maa ngi wootee Kaolack HLM Fawa. ndeysaan moom nag li muy wax nii. Euh, xaw ma ndax yéen ñi nekk à la régie yéen koy dégg mais ñun dégguñu ci dara. donc day pousse portable bi ci gémmiñam wala mu wàññi écran bi mu wàññeeku ñu mën ko dégg parce que ñun dégguñu dara xanaa loo wax rek ñu waxaat ko sama nopp bi te vraiment loolu du neex ci man damaa bëgg ngay wax man ma lay dégg alo allo oui. Suran Suran Ndoye. ok nga ni ana fan nga ñuy woowee. HLM Saara Kaolack. ah ah la dëkk. Ah, waaw yow ana ñoom Moussa Diama. Hmm? moo Ndiaye Rahma. ah. dégguma Moustapha Sow dooroog yow soxla ngay dégg bàyyi rek man may wax. waaw damaa bëgg rek waaw damaa bëgg liy génn ma ubbi la fan. allo. fu may ubbi. Ah, upil mga matam. Kaya léegi. yow lu tax nga yow lu tax bàyyi Kaolack gi nga dëkk tem taamu maatam pour la lool lañu waxtaan daal. ah sama xel ko daj rek ma wóor la ma ko. nekk maatam rek nga ni nañ dem maatam ubbil la ko. waaw lu am maatam lu am maatam nga xam ni. mooy sa wërsëg. mooy sa nañ dem Matam ubbil ko Matam ay ca yéen tamit mën ngeen a woote ci Teranga Sénégal 88 628 20 20 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 06 06 676. waaw Saba Diagne. ay ca 5 4 3 Aba Thiaw vendredi ñaata nga ko may. 50 000 francs pour toi Sira. from Kaolack Mobilu Matam ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax donc mën ngaa mën ngaa wàcc ci suuf ndànk ñu daal di lay wax naka ngay def ba jot say cinquante mille léegi-léegi ak li nga xam moom mooy sa Orange Money et yaakaar naa ni lii mooy teranga Sénégal woote léegi ñu wuy la léegi nga ubbilu léegi ñu jox la léegi nga dem léegi waaw loolu loolu yaakaar naa yàgg na ci télé bi ah, waaw waaw waaw loo xamee amul da ah, nan dem ñëw mhm. da ngay jékki rek gis message bi ñëw ah foofu la maye yam. dëgg sa seen bee ngi laal sa seen bee ngi laal. ñu ne nga dugal ko ci biir sa seen bee ngi laal kaay kaay kaay yow ak ni nga yor noonu yëpp kaay kaay kaay kaay nga awal nii kaay bu dee am na keneen ku ne ci ligne bi rek nañ ko paas léegi léegi awal nii fii awal. ki la ñëw ni mel ni awal nii wiiril fii nga ñëw ni taxaw nii wiiril. waaw dañ la doon door xanaa. fan la fanaan kii. waaw la jaaw kii ne. Ah. kii réalisé nee na. Hmm. say tànk boo génnee. waaw nga ñaan. waaw ay kaw say tànk eh, weexul xoolal na lu fi lu. waa kaay. waa tos tos nga baal mu ku la jaay kawas weex yi. kawas yan. <laughs> jaay kawas. ay bëgg ngeen ay waxi sew euh, équipe bi yëpp. 16 mhm. heures lañ leen wax. waaw di répétition mhm. ñu ngi répété mhm. teg nañ fa seen i añ mhm. teg nañ fa seen boisson teg nañ fa seen yëpp ña nga fee di répété juillet gi yëpp ñëw na yow Toch foo nekk yow lu tax heure Toch mënoo ko fonk waaw mais bienvenue dans votre émission euh, seetu bi eh, di leen wax nag lii nag mooy Teranga Sénégal Teranga Sénégal di loo xamante ni Orange Money moo ci ànd ak ki nga xamante ni moo di euh, euh, TFM <laughs> eh, léegi damaa bëgg ñoo dugal xool woowu euh, léegi damaa bëgg ñu dem xool euh, benn élément euh, ci Abba Show xale yi ñu ngi répété balaa ñuy woo suñu invité mu ñëw nañu xooli benn élément ci extrait wu Abba yi parce que gars yi ñu ngi laajte billets yi gars yi fu ne ñu ngi ko fay jël <coughs> foog naa ni nañu dem xooli benn élément ba tey yéen tamit mën ngeen a woote ci seen numéro yi nga xam ni moom laa leen wax woote leen ci 77 550 655 51 80 wala ngeen woote ci 78 100 xaw ma ñaata mi numéro bi kii kii na affiché am naa billet yu may kenn woowu la wala ngeen ñëw fii ci biir cosaan euh, fi am na ay billet nañu dem xool benn extrait te ñëwaat léegi ci plateau bi xale yaa ngi répété vendredi jot na vendredi toppaat ci vendredi toppaat ci trois vendredi yu tegloo yëpp di Abba Show cinq équipes trois équipes équipe bu nekk am cinq joueurs joueur bu ci nekk war a compétir ñu xool meilleurs sketch yi ñu yóbbu leen ñu dem final meilleurs sketch yooyu ñoom la ñuy yóbbu leen grand théâtre ci esplanade ba yaakaar naa ni événement bi day topp di topp di topp Abba Show c' est un concept Abba Show c' une émission mais Abba Show festival la bu mag boo xam ne waaw waaw waaw waaw ko laahi wallahi nañ dem xool extrait te ñëwaat léegi ci plateau bi. xabaar xabaar soxna si ñëbal sa gémmiñ bi sëñ bi day dañuy ree waaw kay jërëjëf jërëjëf ah, ah, na <laughs> ah, salaamaaleykum salaamaaleykum baatin góor gi waaw kay góor gi nee ah àdduna kenn xamul góor gi likenu waaw waaw <laughs> góor gi nee na ah àdduna kenn xamul aha góor gi expliqué nu <laughs> góor gi nee na kenn xamul góor gi expliqué gi nee na àdduna wóoratul góor gi expliqué nu waaw ma expliqué leen ay law samba ma ne ko déggal góor gi ci ñàkk fayda góor gi ci bonam ñee yéen ñi nga xam ni yéen a seen tànk ndeyjoor teg yëkkati càmmooñ teg jël seen taat teg ci sees ngeen ibbi seen nopp déglu mu expliqué leen. Mm. góor gi loo te mm. kenn fay. déggal loolu. ak am fulla kii. ak am fulla nee nuyuwul kenn. leen gën a bàkk perek ma ñàkk sama ndey da koy defanteeg yéen ba mu sax fay leen ko. góor gi loo teg. Eh, nit loo xamante ni génn na fi ci ay kàddu. waaw ah. man mii maa ko wax. jëm chance de la responsabilité. nee kàddu yi ngeen dégg mu jëpp rek moo ko wax te moo tay ba tayaatoo te sax xanaa war ngeen a war jàng boo tayee euh, yooyu yëpp di ci am waaw ah, góor gi loo teg. mais képp loo ne am na lenn loo ci yëkkati. waaw ah. laajuma la ko nga képp ko. jëm. boole na ñaari fo yu ngeen miin ne kaddu yi ci rek moo ko wax te keneen ku ci wax leneen laaju la ko laajaatu la ko tereet mbaam yóbbaale ko caata maam yamu mu ne ngeen kepp li ngeen moom te xanaa war ngeen fawe catégorie keppa Memza keppa nous désirons keppa au nom keppa yéen ñii loo teg. waaw. waaw. déggal loolu. déggal waaw. waaw. waaw waaw ak am fula. dégg ne. góor gi doo ko leeral tuuti. waaw. toogaayu moom. waaw. non la lay demee. noonu. jàng yi. jàng lay demee. noonu dama waxoon rek. laa ci waxoon tarkal la jarul mu koy bamtuwaat jarul mu koy wax wax ji di bëriwaat. nii jàng yi mu amee woon daaw. nee ren jii lay amee tee. jàngi daaw saaga ndaya ko yàqoon. ku ney saaga jëm fu ne. ren jàngam yi responsabilité ku ci saaga ku ne dinaa ubbi aja aja mu ngi noonu euh, Mao Cissé jaajëf maa ngi lay kontaane baax maa ngi doon euh, xool euh, di seetaan maaw moo ngaa bàyyi ñu xool ba ci kanam yow tamit ah extrait bi euh, daa neex li bokk na ci euh, li nga xam ni amoon na ci euh, Abba Show ay extrait la yoo xam ni mooy waajal Abba Show 12 ak Abba Show bi ci topp muy vendredi le le 19 ak beneen Abba Show bi nga xam ni moo ci topp muy vendredi le 26 wax naa ni mën ngeen a am ci seen ay billets ci li nga xam ni moom mooy 78 134 41 63 wala 77. cent cinquante cinquante cinq a 51 80 numéro la yi nga xam ni euh, mën ngeen a jot seen ay billets wala ngeen ñëw fii biir cosaan boo fekkee Jean dangay am sa billet nank VIP 10 mille la entrée simple 5 000 la VIP bi mooy ñuy toog fële. mooy VIP bi lekk pastel lekk akara naan boisson lekk ay boulettes yooyu boulettes. ñaanam ak yëpp ay lekk yoo xam ni lekk yu raar ay lekk yoo xam ni mën ngaa yor xaalis te doo ko gis yooyu la ñuy jox VIP yi ñu lekk ko ay lekk boo demee da ngay nettali bi ma fayee sama 10 000 ma en tant que VIP lekk naa loo xam ni musuma koo lekk wala lekk naa loo xam ni gëj naa ko lekk ñaan dam raaroon na daal akara ay dànk dànk bulet xam nga ay sa yii mu may lan xamoo mbaaña mbaaña non non moom la mag ñi daan jaay mbaaña maa ngi non non mais mbaaña <laughs> maa ngi mu mel i mais euh, ko fay euh, dañoo teg suñu plat ba pare teg bi ngay wax ni mënu cee bokk ah mbaaña mën naa am mooy VIP yi mooy ñu jënd 10 000 ñu jënd 5 000 nag moom hmm. ñooy toog fii nan réglé ñoom laa nan réglé ah toog rek xam ni 5 000 lañ fay nu réglé daal rek daal <laughs> ni ñuy reetaanee waaw waaw xool ni ñi café ay heure bi lan ñu waxoon nag cinq minutes romb na commencé yooyu yëpp seen yoon nekk ci yéen tax atu noo mën na yéen fay seen xas yéen ngeen génn ñee lañ xamul lu ñu def moo fay yéen moom mën nañ leen a fay donc mu ngi noonu yéen ñi bëgg seen i billet mën ngeen ko ñëw daal di koy jël fii ba pare am na dix booy yu bees tey cinq éléments Abba Show yi fi nekkoon ñoom rek ñoo bokk ci quinze li ci des yëpp ñu bees na eh. dix te réew mi dafa bëri ndaanaan dix réew mi bëri na ay ndaanaan émission yu mel nii bu amul. waaw xale yi mënuñoo feeñ. déedéet ñoo feeñ abaa damaa bëgg ñu xam ne reetaan la doomu aadama mënta jënd. démb lii ngay wax nii boo génnee fii bitim réew. nit pour mu reetaan da ngay fay lu ëpp loolu. parce que mbég la amul amul benn ordonnance bu lay bindal. ñu def ci mbég. Mhm. doomu aadama rek moo mën a bëggal doomu aadama. Mhm, ba pare li ci neex maam raan mhm. mën nañ laa reetaan loo de waaye ku ci ëpp ful la sa morom nga ne kii la. ndax ñoom ñëpp dañoo bëgg seen bopp Ah. respecté seen bopp. bëgg seen liggéey xam ne lii kat. on bëgg waaw vraiment ay nit waaw ay nit yu ouvrier bi loolu mooy métier. loolu mooy métier. ministre bi euh, ay fonction la nekk day liggéey ak yooyu. ñun lii suñu métier la. tey lii. Eh, lu ñu mën a am ci teranga ci àdduna lii moo ñu ko jox te yow mii mënoo ñoo gën tànk ñun gënuñu la boo amee problème ñoo koy faj seen kër bu amee sa couple bu amee problème ñoo koy réglé yow boo meree ñoo lay reetaanloo yow waaw yow ñoo la gën waaye ñaata nit damay woo na man say audio sama soxna saa bu nu amee problème damay envoyé say audio ci yàlla na ko ah ba loolu dama kaa dégg aba ba mënatuma kaa dégg pareen saay pareen saay nga toog fii ne ana diw ak a baax ana kee ak a baax ñu ne bàyyi ñu ma leen waaw da ngay ni fayeeku sama xaalis ah da bu dee mas ngaa reetaan loolu nit membrane ba mu reetaan waaw ba xol ba sedd ci loolu ameel na la mu yëg koog mu bañ koo yëg waaw waaw loolu looloo ma dal ma ci tax magal xam nga yow magam ko ko yaa may bëggal man naka kan moo lay bëggal man maa lay bëggal yow ni yaa lay bëggal waaye yow jàll na la nga ma yow la nañ dem aslem <laughs> seetaan ki nga xam ni eh, mooy fàllu kol wax naa ni mooy borom kol yi tax na xale yëpp yiiw fàlloo ñu tàqaleeg dem màkka ñëw di indi ay sérité ñu naan réer na ci aéroport beeg la ma ko jëlee dafa cher fàllu tàqal ni ñoog loolu lépp fàllu loo bëgg rek te hmm. nekk màkka boo ñëwee ci fàllu am ko fi yow boo ñëwee bul jaar sa kër hmm. Hmm. demal asolem ci fàllu directement jënd li ngay jënd yëpp def ci say walis dem ñibbi sa kër lépp màkk la jóge nañ dem seen fàllu ay ci bi ngi noonu wàccoo naa ñan di uh, fàllu kol ababa démb rek maa la koy wax ne naa la xeetu tusngal ak loolu nga xam ne moo di ndoxu sam-sam yi Fallou bàyyiwul dara ma nga foofu ca marché HLM ci centre commercial Daaru Salaam nañ dem xool tey Fallou lan la ñuy proposé ñëwaat léegi ci plateau bi maaleykum chers amis téléspectateurs ñu ngi leen nuyu bu baax a baax waaye itam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax tey nag bu ngeen ma gisee xam ne tey nag maay ajaratu bét yi wax dëgg du ne ndax ñi may seet si tey ñoo ko waral muy waa établissement euh, Fallou Coll maa ngi lay ziar a baax sëñ bi Nour. soxna Biti ñu ngi ziar. non def nag euh, boutique bi. Eh, ñu ngi sant yàlla xanaa di préparer jaaji rek. Mhm. waa di leen wax ne leen waa seen seen seen boutique la xam nga yéen ak Fallou Coll moom yàgg ngeen trop sax. soxlaatul ngeen di jënd seen bagage màkk ngeen ñëw aéroport ñaa la réer naag lii ak lii la quoi surtout boutique bi am na vente en ligne beeg yooyu yëpp am na mhm. ku ñëw daal di nga kontaan. Mhm. kan maa ngi nii di doore ñëw man ka damaa ñibbi si damaa France sama kër di ma tee fii laa fi fii laa jubas ci fan mbaa lay nooy jógee màkka ñëw fii goog googu forme màkka waa yow dama ne la daray coonu dunu ma ko màkka di may ñibbi si sama yére képp laa indi fàllu ko soo ñëwee loo soxla woon màkka di nga ko fa kon daal fàtte bagage waa daa ëpp ñu wàññil ma kol gii daala ma topp màkka ah! ak mbaxana mi mbaxana mi damaa kontaan fàllu ko avec fàllu ko. ah tout est possible. kon kay fàllu ko solution. lan naan ku topp ku raxas ba fegal ba dëppi ndagam bàyyi fukki ba rusi ndawal fooy añe fàllu daa rusi bu yàgg. Oh, nee naa la boo bëggee dem da ngay toog ci lu jóg boo toogul ci lu jógul émirito la fa yëkkati. ay la xam nga lu ma wax. waaw kon sama sëriñ maag yow seeda seeda la tànk ak tànk nga ma koy joxe. waa léegi nag man danaa la ko jox. waaw waaye boo bëggee gis ujaaj bu ne. Ah. jox la sëriñ ca. waaw jarul ngay paas di dem leen fii rek ana ana sëriñ taxaw kon yéen ujaaj yi nekk te da ngeen di ñëw sol seen yére jënd lépp. jox naa la kon ay waay ay waay jox naa la baxana ay waay jox naa la jàllaabe ay waay waaye tabarkàlla xanaa avec Fallou kon tout c'est possible <laughs> Fallou fii laay taxaw karaat ñeneen ndax ndeke ujaaj yi fii mooy sit dootoo leen ko defe xajal man personnellement dama mës a bëgg sëricë lii nga xam ne moo di ñuy jóge màgg waaw nga ne la bu am rek dama fay dem toog di xaar sëricë macha allah ayca Nourou mën nga ñoo jox loolu nga xam ne moo di numéro yi nga xam ne buñ ci wootee rek dinañ jot waa Falloukolle waaw suñu numéro fixe bi 33 la 825 98 02 bu dee numéro orange bi vingt 77 422 46 00 ak 78 196 45 91 beneen numéro bi 77 la 744 13 52. waaw képp ku euh, soxla ay bagages yu baax rek pour ujaajeeg yooyu yëpp mën nga ñëw fii daal ci Fallou Koll. waaw fii moom boo fi ñëwee macha allah di kontaan quoi mhm. waaw. merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci kóolute gi ngeen am ci li nga xam ne moo di euh, seetu bi waa euh, établissement Fallou Col établissement Fallou Col nag ñoom équipe lañu macha allah xale yi bi ñu ñëwee ba léegi kenn toogul ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier Fallou di remercier Nourou ñoom ñëpp ñi fi nekkoon ñu ngi leen di jëfal lu bëree bëree bëree bëri Fallou Col wax naa leen ne du feneen gis ngeen ma ni ma ajaratu nii macha allah lii robb yi nga xam ne dafa baax ci julli yeeg yooyu kon boog ñëw leen ñëw leen ci moo ko yor macha allah rabbi moo ko yor yéen waa seetu bi xam ngeen li may wax yéen mbokk téléspectateur ngeen li may wax mais Fallou Coll nag di la jaajëfal bu baax a baax ci les amis de Béti bi nga xam ne moom nga ñëw dugg si man samay xarit dañoo am ma non dañoo meilleur macha maa aussi c'est euh, élément yëpp tey fexeel mu dugg à temps parce que 18h émission day jeex 18h dañuy répété 18h émission bi day jeex looloo tax euh, ñu teel a dem euh, fi nga xam ne moom mooy HLM ca Fallou Coll dañuy a indi suñu invité. teel a wut ay appel teel a ay appel appel yi dugg. waaw ñu. ah teel a dem marché rek teel a taal. waa kii ah, lan la. ah andiwaatal na ni. waaw mais man même ba ma lancé la. nee na nee na comme élément yi daaw daawul dugg à temps léegi dañu bàyyi yëpp dem. Ah, mais xaaral ñu. xool na kol mi nu génn nii ah, asulem ak yooyu. eh kol asulem. <laughs> ay waaw mi ngi mi noonu. <laughs> ay ca Fallou Kolle lañ demoon seeti. waaw. Fallou Kolle asalem. nga ni sa doom ji maa ko sonal ak yooyu Fallou Kolle asalem. Fall Tigre. Fallou Kolle asalem. waaw. ayca mi ngi noonu Fallou Kolle lañ demoon seeti ji marché HLM moom nag gis ngeen yi nga xam ne moom la baaxoo di ko jaay Fallou nag léegi da cee dugalaal lool nga xam ne moo di ay eh, brodé mbasin. lépp rek mi ngi foofu ci établissement Fallou Koll comme ni ngeen ko gisee ay cuuraay yi nga xam ne sax nag jidda la jógee Fallou daf koy eh, daal di jaay ndoxu samsang yeeg ak loolu nga xam ne moo di eh, tusngal bi nga xam ne soxla nañ ko baa baaxoo nañ ko li naan defoon nañ ko daal fekkee déwén dañuy baaxantal mu di euh, tusngal yooyu gis ngeen man samay suufu bët moom laa ko def nii macha allah ah, te fay loolu nga xam ne daf lay jox wér gu yaramu bët aba ah, billaay ndeysaan man dañ daan wax ni boo defee sa tusngal da ngay gis ah. kuy fóot waaw man nag kuy passé laa gis kuy passé <laughs> dama dem foo dem ba kuy whatsapp laa gis man waaw man gis naa kuy whatsapp xooloo de. xooloo bu baax. <laughs> Falloukolle ayca mi ngi noonu Aba kool dañuy am mbégte lool ak euh, contentement euh, doon ko teg ci li nga xam ne moo di euh, seet bi ndax nag moom nee naa la les amis de béti dafa ñëw xoolal dugalul loxoom de dugalul tànkam moom dafa dugal lépp macha allah kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. di remercier waale bu baax a baax kooku nga xam ne moo di nuuru borom nuuru boutique moom itam dañ koy nuyu lu bëree bëri gis nga ne waaw gis nga ko moom tamit waaye fàllu la Euh, gis nga ne sax moom moo ko présenté loolu nga xam ne moo di euh, les amis de Betty bi ñu ngi koy jaajëfal lu bëri bëri di nuyuwaale bu baax a baax di leen baalu àq waaye itam di leen baal àq Tidiane Dabo Moussa Dabo Ibrahima daabo ñooñ nga xam ne ñoom waa Seydou Dabo ñooñ nga xam ne euh, ñun ñëpp ñoo bokk famille ña ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax merci beaucoup waa macha allah maa ngi ñëw léegi songaan leen ñu waajal loolu nga xam ne moo di màggal Tuubaa gi incha allah. ayca ba tey comme ki nga xam ni moom mooy fàllu kol indi ñu waneel leen ko mu daa di feeñ te doo fay dara wala bu ñu su ma nee euh, doo dara da weexal rek. la rek. te euh, Fall ngeen baal ma lii ma wax ko ba pare. Euh, non non dama koy wax parce que baalu àq la. salaamaaleykum maa leen di nuyu. damay baalu àq fàllu kol. actuellement HLM gépp ku fay tegtal. man mii falaa dëkk. bu may tegtal dama naan wetu palaasu fàllu kol. donc pour wane ni moom mii li muy def ci réew mi tubaarkàlla lu baax waaye baal ma àq ci li may utiliser si boutique bi di la tegtal gars yi di ñëw ba foofu di ma laajte jënduñu dañoo laajte si man la ñuy laajte maa ngi lay baalu àq bu baax acca léegi dox la leen lu leen neex ngeen wax ko ah abaa pàllu kol hmm. buñ fa demee sa xel day dem ci màkk bu sa xel demee ci màkk li nga wax nii bagage yuy réer ak ay fàtte naa valise yooyu yëpp yaakaar naa moom la bëgg a jëlee ci réew mi looloo waral mu andi bitig mu mel nii hmm. lépp loo xamante ne am na ca màkk rek boo ñëwee ci bitigam bii da nga ko fa fekk kon donc béti saa su nekk boo ñëwee indi falu ko rek dañ ciy gis am njàngat mu yaatoo yaatoo yaatu kon donc loolu am na solo mm-hmm. yàlla na yàlla defal ko jàmm léegi nag fi ñu toll ni dafa am nga xam ni invité euh, boo moom euh, Diop mm-hmm. euh, invité bi suñu kilifa la ñun ñëpp mais da cee moom mii waaw invité bi nag biñ dañ koy invité moom béti mi dafa taxaw ni invité bi ku soof la kon nag xam nga invité bi waaw ndekete <laughs> ndekete moom invité bi yow la ko teg ma ma ne ko invité bi day ah kooku de suñ kilifa la man xam naa ko ku soof la léegi nag léegi nag bi ma demee ma ne ko keneen piscine bi ko lañ invité ma ne ma eh <laughs> naa ma juum naa de ah, léegi nekk dama lay bàyyi ñu dem xooli benn élément ci invité bi mm. invité bi bu yegsee wala balaa invité bi di yegsi ñu bàyyi la nga wax ñu kan mooy invité bi ñu am tey mm-hmm. ah na dem xool élément bi ci ñoom. ayca kon nañu dem xool élément ayca. <laughs> Est-ce que tu peux me donner deux verbes du premier groupe? Oui, monsieur. Janvier et février. Non, janvier février, ce sont des mois. Les verbes du premier groupe, c'est par exemple marcher et puis voler. Conjuguons le verbe marcher au présent. Je marche. Plus vite, nom de Dieu. Nous courons, vous courez, il eh, court, monsieur. Mais pourquoi tu cours? Monsieur, tu as dit plus vite, non? Maintenant, le verbe voler au présent de l'indicatif. Je vole, il vole, nous volons, vous volez, il vole. Monsieur Sidibé, je peux recommencer. Non, non, c'est bon. Maintenant, le verbe voler au futur simple. Monsieur, c'est très simple. J'irai en prison, tu en prison. C'est pas ça. Le futur du voler, c'est pas aller en prison. Si, si en offre, après tu vas en C'est pas. Ah, ah, ah, Il m'a demandé de faire deux frappes au pas système. J'ai dit, monsieur, les deux frappes au pas système que je connais sur la route de Lignan. Nous rencontrons une dame qui me donnant de Lignan. Au retour de Lignan, nous remercions la dame de Lignan. Très bien. Maintenant, quels sont les verbes que j'ai utilisés sont dame, Ignam et Lignan. Est-ce que tu peux me faire une phrase commençant par dès que, c'est-à-dire, euh, exemple, dès que je finis de manger, une phrase commençant par dégg dégg yëngal mu saf dégg yëngal mu saf soo toogee mbaxal dégg yëngal mu saf jour boobu lañ ma dàq école vous savez dafa am benn joolaa boo xam dafa feebar ndeysaan feebar feebar dispensaire la génnee ndeysaan si biru mu ànd ak jabar ji jabar ji téye ko nag di dox di dox rek beneen copain romb eh Albert Albert qu'est-ce qu'il y a eh, eh tu es malade tu es malade oui je suis malade je suis malade et sa femme qui dit ah, Albert dafa paliw dafa paliw mu ne ko ay na sant yàlla bu la bi jàppoon doo dox pali rek ngay dox bu bi jàppoon doo dox léegi yàlla da doon may ay way Dieu distribuer aux ethnies des chansons les Wolofs sont venus les les Massamba ils sont venus et les Babacar Mbaye en premier et Dieu leur a donné Sambay Mbayaane Mbaye ils sont partis en délégation tout joyeux les Sérères sont venus ils ont ils ont pris. ils sont partis en délégation tout joyeux les Pulaars sont venus on leur a donné wangay wangaade wangale depuis lors ils chantent wangay wangaade mais vous savez Joola dafa gëm service les Joola étaient dans les faro en train de cultiver leur champ et les Sérères qui dépassent les Joola qui leur disent eh Mais Dioula, qu'est-ce que vous faites là, la Dieu est en train de distribuer les chansons, vous êtes là, allez-y, prendre vos chansons. Et ils sont partis en délégation, ils, sont arrivés. Hé, hey, nous sommes prendre nos chansons. Dieu a dit, c'est fini. Depuis il une heure. Et le vieux Dioula qui était devant a dit, oh, et Dieu a voilà, prenez-le. Et depuis ce jour-là, toutes les chansons Dioula, oh, oh, oh, oh Il a pas une chanson Diola où il n'y a pas où. Je défie tout Diola qui est là, qui, n'a qu'à venir me chanter une chanson Diola où il n'y a pas où. Il n'y en a pas Il y a un Diola qui peut venir ici chanter Adja, ana Diola, bi, Kai. Néol. Ndeysaan, nous gëmé sen bop. de Outaya. Et dans la voiture, ils n'ont cessé de rire, de rigoler. Et eh, Kaya te dit, eh, hey, puis, toi, pourquoi tu rigoles depuis l'aéroport, on rigole, tu rigoles, tu se passe Et eh puis tu dis non, c'est-à-dire, j'imaginais autrement Naxo. J'imaginais Naxo avec des branchières, des immeubles, mais je ne vois que des tentes. Et Kaya tu dis, oh, aux États-Unis, il n'y a pas de tente. Eh, aux États-Unis, il n'y a pas de tente. Trois mois après, Kaya qui va en visite officielle à Washington, il descend à l'aéroport. Il dit, hé, eh, laissez-moi, je vais aller chercher une tente. Et de 10h du matin jusqu'à 21h, il a cherché le temps. Et finalement, il trouve le temps. Il appelle Bill Clinton. Et hey, Bill, viens là, il rigole là, rigole là, le dernier. Bill qui arrive en haricot. Oh, Taria, je sais pas tout. Où est-ce que t'étais passé hein? Et euh, chez moi, tu rigolais. Tu as dit que chez toi, il n'y a pas de tente. C'est quoi ça C'est pas une tente, ça Bill Clinton dit, yeah, yeah, c'est une tente. Je l'avais complètement oublié. D'ailleurs, c'est la seule tente qui existe aux États-Unis. Et c'est l'ambassade de la Mauritanie. coup, je me suis dit, je ne suis pas mauritanien. Et là, je suis parti au Mali. Et au Mali, dans le train express Dakar-Bamako, il y avait un Français qui enfumait, le, le, le, le Malien enfumait le Français. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Il est invité, lui. Vous êtes manqué, monsieur Hein Ah, vous n'êtes pas manqué. Oh, oh, oh, ah, ah. kokoko Mao Cissé merci beaucoup jaajëf euh, Balla ñu seetaan ay éléments yoo xam ni euh, grand Pichinini ko euh, moom moom Alaaji Mao maa ngi jégalu Alaaji Mao Cissé maa ngi jegalu bu baax a baax a baax donc ñu ñëwaat ci plateau bi nga wax ñu kan mooy suñu invité tey malgré xam nañ ko mais yaa préféré ñu jox la pour nga présenter ko xam nga tamit ah, ah, ayca ayca voilà merci beaucoup Aba loolu sama choix bopp la defe naa ni image yi am na lu mu wane. moom présent am am na lu mu wane. maanaam ay xale yu ndaw boo leen waxee piscine ni ko mën nañ ni dégg naa ko rek ca càppaa njëkk ga waaye kii maanaam dafa romb moom jëmmam romb turam Abdelkader Jara la tudd li tax Kader Piscine ni koo ñëw. c'était ce fameux son clip boobu nga xamante ni temps booy ñun moom la ñu màggaale di ko fawee caapa ñaama Piscine ni ko du ñàkk ci kanam tuuti xam naa dina daw. nga gis ko defal ni ci loolu kese la yam naan ay parodie lay def wala comédie musicale Kader il a fait l'école des arts il est diplômé de l'école des arts moom mooy première humoriste solo bu tekk entreprise am multiculture organiser festival international humour jëli ay humoriste bitim réew indi fii. mu ngi nii toog moom mooy nekkoon suma directeur man académie de théâtre ba ba académie bi di jeex Kader moo nekk suñu directeur nekk sama professeur interprétation et il fait des milliers de formations biir Sénégal ak bitim réew il a représenté le Sénégal partout dans le monde fépp foo xamante ni tey ñun jot nañ faa mos defa ni ñëw mos nañu ñëw di guux mbagg ñëw naan ko dañ koy tàggu naan ko dañuy dem bërëb sàngam mu ne 2003 dem naa fa 2005 dem dem naa fa représenté le Sénégal wax ci moom day metti trop parce que du xaaj ci émission waaye en tout cas ku baax ku généreux mu ngi nii koo xamante ni nag du ñu juboo man ak moom li tax du ñu juboo mooy carrière dafa am ay principe lii da nga koy def mu jaar yoon point neex naag neexul ak baax naag baaxul na jaar yoon norme bi lii la wax lii ngay def et c'est ces moo ñu moo ñu jàppale ba ñu mën a avancer ba mën a toll fu sori moo tax Kader un grand merci laa lay wax devant tout le peuple sénégale di la nuyu sa soxna Mariama maa ngi koy nuyu. maa ngi koy nuyu. maa ngi lay nuyu Kader ma bàyyi la nga doxal. mais yow da taxaw fii ànd ak ñun euh, noonu taxawal ànd ak ñun maa ngi yow ñoo bokk même micro taxawal nii nga ànd ñun donc ñuy laaj grand bi dañu lay bàyyi ngeen nuyontee ak mbokk téléspectateurs yi bu defee ñu doog a dugg ci waxtaan bi. non noonu dem di ñëw ah, day dem di waaw ayca. <laughs> waaw maa ngi maa ngi nuyu Aba maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi ñëpp di nuyu euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan TFM euh, particulièrement émission seetu bi en ce moment. di euh, sawar aussi di ñëw répondre à une invitation où on parle de culture on parle de de one man show. parce que li tax ma gën ci sawar dafa fekk ne dafa am xeex bu may xeex depuis longtemps. Euh, ñu war ko bokk xeex ko defe naa yow sa bopp am na fu ñu dajee woon ba président de la république si boppam am lu mu wax mais lu ñu suivrul woon je pense que bu ñu ko suivre woon Macky Sall si boppam moo ne woon dana génnee benn euh, subvention boo xamante ni fonds boo xam ne dañ koy jox lu humour au Sénégal parce que boobu am na ay ñuy jógee bitim réew di ñëw di organiser si fii pour suñu population donc président ñun ñoo ko suivrul nag je pense que président bëri nañ lu ñuy lu ñuy def euh, Euh, beneen xeex bi mooy que euh, fépp foo xam ni euh, en fait les parlements du riir dañ may woo fu nekk ci Afrique naa maan lu tax Sénégal amuñu humoriste bu taxaw boo xam ni war nañu mën ñëw représenter si quoi parce que defe naa Balla moo fa demoon Mahfouz Doudou ak sénégalo ivoirien bi mooy Bakayoko ñoom ñoo fu mosoon dem je pense que yii ñuy def ni buñ ci continuer un jour ni nañ am suñu bosu bopp bu international boo xam ne ñun ñoo ko defal suñu bopp ah li may waxaat aussi mooy euh, nit ñi dañu naan woy y a pas un comédien sénégalais parle français on s'en fout de français fii laa koy waxee on s'en fout de parle français nit ñi nañu dimbali euh, chinois bi buy wax chinois lay wax allemand bi buy wax allemand lay wax ñun bu ñuy wax wolof la ñuy wax maintenant wolof bi na ñun aussi bu ñu bëggee am xaalis il faut que ñu jéem a internationaliser li ñuy wax internationaliser c'est quoi Abba mën na jouer fu nekk kii mën na jouer fu nekk Balla mën na jouer Kouthia mun na jouer fu nekk pourquoi ñun dañu am suñu problème mu complexe di def faute mhm. alors Boukari mu ngi mooy toj parlement du rire Boukari tàkku làkkul français Gowou Gowou làkkul français moi je te parle comme ça là c'est pas français je parle ça c'est son français à lui mais quand man on peut dire euh, moi je suis j'ai sénégalais et j'ai à à à venir ici à les parler à les gens mais quand je parle comme ça les gens comprennent ñun loolu la ñu war a mën a def dama bëgg yooyu ñu koy waxtaanee si yu mel nii yoo xam ne Abacho am na ñuy am ay écriture ñoom xam nañ man man maa leen ci. dëgg la bind yi ñuy bind parce que dañ koy bind bu ñu ko bindee commencé ko sama xol day bon saa yu ma déggee nii kenn mënul dem représenter ñu parlement du rire. yàlla xam na ni fi ñu jógee ñun ivoiriens yeeg ñeneen ñu ëpp lu ñu humour yaa ngi koy wax sànq historique. wala man dama ñëw rek maam. ay kay kay kay kay nuyoo laa nekk kay kay kay kay non kay kay kay ci fi nga nekk foofu lañ bëgg parce que parce que ci li ngay wax nii man dama ci am anecdote ah man damaa dem euh, fi nga xam ne moom mooy ca Mar Marrakech du Rire mais kii mayu ma ko woon benn jàmm et man j'ai vu Chomel Debbouze ma ni ko un jour man dinaa ñëw man je ferai partie un jour ba de ton team mais il ma faut ma dem à l'école ma gën a defar sama français mu ne ma pourquoi tu as un franc pourtant tu as un un français pour faire rire. ma wax ko kii su ma amee sketch su ma ko waxee balla bindal ma ko nii ak nii su bindee dama naan ko non il faut nga def ci ay fautes man maa koy wax il faut nga defal ma ay fautes c'est pour faire rire. quand même parce que dina am koo xam ni eh, tu parles français. mënul comprendre c'est ah, xam nga kii di wax nii ay tuwa abaa la donc li muy bëgg moo fair rire parce que li ngay wax dafa neex mais tu veux faire rire parce que tu fais des alors que ñun problème complexe bu ñu am loolu am na ci mais am nañu complexe am ay professeurs yoo xam ni tey dañu lay teg parce que ñun mën nañu am humour fii maîtriser ko fii au Sénégal mais pour di génn il faut grand yi il faut grand yi ñu ñeme ñu encadrer il faut grand yi ñeme ñu fekk ñun fi ñu nekk nañu booy ci yoon bi ngeen di jaar ci yoon bee ngeen di jaar booy da ngeen koy defee nii da ngeen koy defee parce que ñun tam bëgg nañu dem ñun tam bëgg nañu yóbbu suñu yëf parce que culture bi bu ñu ko yóbboo du ñu yóbbu Abba wala ñu yóbbu Balla réew mi la yóbbu mais grand yi je pense que loolu am ngeen ci benn part de responsabilité quand même. si man en fait liñ may liñ ma koy wax dafa bëri. la plupart du temps man la ñuy wax non yow la yow la yow la bon man mënu ma def lépp ah, li ma mën laa def te li ma mën baal la wi nii ñëpp xam nañ ko man pris de mon temps je que man depuis quatre-vingt-dix-huit laa commencé di jàngale quatre-vingt-dix-huit ba tey. waa si si si zéro franc laay wax de. waaw man dama koy jàngale parce que dama ko bëgg. li ma bëgg sama satisfaction mooy gis xale yi di am. di am lu neex di am lu baax muy neex quoi ñu passé si man. gis nga li may wax si talent Sénégal dañu am talent yu bëri bëri bëri peut-être comme tu dis encadrement rek moo ñu dese un tout petit peu. Euh, depuis Ndaamal Gosaas ñun Ndaamal Gosaas boo demee Fatick boo ne Ndaamal Gosaas dañuy ree paa yi ko xam dañuy ree boo ne Moussa Sène yow doo xam Moussa Sène per bu xar ngay xam mais per bu xar bii Moussa Sène lay toppandoo musa seen boobu moom moo tudd per bu xar donc boobu noonu il était hyper comique. ñu ñëw jóge ci Moussa Sène ñu ñëw ci Sanoxo Sanoxo xëy na fekkeewu leen temps mais Sanoxo moo njëkk enregistré moom ak Moussa Sène ak ñoom Mbegere ñoom ñoo njëkk enregistré loolu dafa yàgg te yooyu boo leen ko dégluwaatee. mais ñun li xam non mais ñun li mos ñu ko xam. non mais ñun li ah? moo doon ah? def leket di def. xottu almet da ci am na doon tëgg. da ci doon da ci doon tëgg di ci way. Ah, da doon tëgg di ci way moom moo enregistré. xool nga ne lan mun a dut. mais Sanoxo moo indi Kouthia Sanoxo moo indi Sa Ndiogou moo indi docteur ñoom ñëpp ay Sanoxo numéro 2 la ñu woon doo dégg Sa Ndiogou Kouthia si répété répété li li li li li kii doon def moom su la commencé docteur si mu répété ko la doon def donc ñun humour dafa nekk si suñu dëkk bi fii nii mais ñun peut ñun ñoo ko jëlul encadré parce que nag jamono day dox boobu jamono ñoom dañuy dem benn saanooxo boo ko daan jox tuuti rek mu enregistré la benn affaire mais jamono day dox mhm. léegi da ngay ñëw ci télé bi télé bi yaa ngi def abasho abasho mun na indi xaalis quand di xaalis c'est pas les entrées mooy def xaalis mhm. lii def xaalis mooy yow nga joué nga am talent ñu jël la feneen nga dem di joué yi mhm. yow kese ngay dem di joué di joué gis nga bu fekkee ne am nga ko au moins dix fois dans le mois je pense que euh, benn fonctionnaire du la ouverture porte la rek. Euh, waaw waaw am benn affaire boo xam ni Kader il faut que peut ñu laal foofu. Euh, mooy ces talents yi nekk fii biir Sénégal pour nga internationaliser ko wala pour nga jëlee ko fii yóbbu ko feneen mu mën laa jox koom wala weccet donc ñu ñu def blocage ci langue bi est-ce que du complexe bi c'est à travers ce public. parce que par exemple le public de Boukari exemple le public de Boukari wax neex na leen ils comprennent ça malgré que c'est pas des français yoo xam ni si a au niveau ñoom li ñu bëgg mooy nañu xam kii lan la bëgg wax mais tey man su ma ñëwee taxaw seenu abasho wala yeneen spectacle humour biir Sénégal am na lu may làkkee français ñoom seen bopp ñooy njëkk siisu donc est-ce que du dama war a convaincre sama public déjà fii biir Sénégal ci base bi ba pare ba ñu nangul ma ma koy soogu mën internationaliser mais fépp foo am na façon publique am gis nga bu fekkee dañ la jël si benn show nga ñëw di jouer je dis n'importe quoi Abba show boo ñëwee jouer public bi ngay jouer vendredi bii nii wala samedi bii nii ak public bii ñëw samedi prochain bokkuñ wala seetla bu baax fii nii ñi di reetaanee si sa benn van si bii nii mën nga ko def van bi prochaine fois kenn du ree instant boobu parce que public yi bokkuñu public yi si seen reetaan nga koy xamee boo amee toute expérience bu ñu waxee commencement tëb bu nit ñi commencé na ah ok kon public bi façon façon bii ngay waxee ak moom quoi mais maintenant pour le français mais dafa am public français bu bëri bu nekk Sénégal man bi ma organisé troisième mi-temps mais dafa fees del mais ñi fi fees ay sénégalais bon terrain ñoo fiy ñëw ay artistes de renommée yoo xam ne sénégalais lañ dañuy ñëw kontaan si ñëw fekk si benn affaire boo xam ne ay français ñëw ay ay benn public bu def français mais quand je dis français c'est pas seulement la langue français yaa français France la ñun am nañ suñu français bopp ñun français ñoo ko moom donc ñun nañu def suñu français boo xam ne français dina ko dégg wax dëgg yàlla bal la ak yeneen booy yi nga xamante ne ñoo bëgg tukki buñ fi gisee gel tubaab te ñoom dégguñu tubaab dañuy ñafe wax wax wax ba ba ba cëppal ba cëppal ko waaw mais jeex eh, et puis ñoom ñu nekk France te ñu nekk ci humour bi ñoom pour faire rire dañuy utiliser ñun français suñu maam yi la ñuy tooñ comme sama maam ni mu doon waxee suñu ancêtre yi comme ni ñu doon waxee noonu la ñuy tooñee pour faire rire donc ñun am nañ français pour faire rire mais juste am nañ complexe waxu tubaab am nañ complexe di làkk tubaab di ci def mais tamit am nañ complexe euh, invité ay nit ñu ñëw toog nga wax ñu ne moom dafa commencé soof ñu dem fee muy làkk ay tubaab yoo xam ne kenn xamul suñu public bi am nañ ci waaw am na secret li nga boo ne humoriste nga bañ ngaay remarqué say faute doo tudd sa tur da nga tudd keneen yow sa bopp nga ne man la diw wax keneen changé sa forme waxee neneen bu boobaa du yow yaa def faute bu ñu waxee faute ne waa ji moo def faute personnage bi boo duggee si personnage moom dañ la koy baal bu kar yi personnage la ñëwee bu kar yi du nii lay làkkee tubaab de dégg na tubaab de mais du moom du nii lay làkkee tubaab dafa ñëw jël benn benn mosi rek mu ne man mosi la benn mosi la paaw mosi mooy waxee nii jeex na mu def mosi fu man foofu lañ ko war a mën a jëlee loolu nag Euh, dama gis ni ah, que ah lu ñu koy wax avant mu ñëw ci plateau mu ñëw ba ci plateau bi. dama ah, bàyyi loolu waaye bàyyi loolu. laajal laajal <laughs> laajal. man j'ai vu que yow sa style théâtre ak yeneen yeneen style théâtre du benn man lan nga ma ci mën a expliquer parce que am na loo xam ne comprendre ko ci yow. mooy que comme tey jii hmm, xaw ma nan laa ko mun waxee. yéen waa mooy mooy teraanga Sénégal gi am na ñu ne ci ligne bi wala wala wala wala ngaa bëgg marqué 88 628 20 20 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 06 06 à tout moment mën ngeen ñëw woo daal ñu dog ñu yeggali kenn kon baax na. waaw comme li ma li ma bëgg wax comme tey jii benn yeneen théâtre kat yi comme théâtre yi ñuy gis am na yu bari bari bari yu ñuy gis mais ba tey bokkul ak yow sa maanaam moom da bëgg wax ndax moom ni mu classique ak ñeneen ñi ñu nekkee ci beneen beneen dafa bëgg a laaj ak humoriste man dama yaakaar ni foofu la bëgg laaj parce que man tamit war na ko mën a parce que man loolu tamit bëgg naa mu leeral ñu ci waaw kan mooy humoriste kan mooy comédien waaw ah. waaw ah. ah. baax na kii ñoo ko dimbali nee ñu merci te dama te ba tey damaa soof te ba tey damaa soof <laughs> non moom fi muy waxee mooy lu classique li Kader nekk parce que Kader dafa classique nekkul ci affaire de sol caaya fii jouer fee bërëmu fee dàq jeeg affaire yooyu moom nekkul ci loolu yëpp loolu nga bëgg laa yëpp waaw te am na ñoo xam ne ci lañ nekk yooyu yëpp léegi nag loolu mu toog peut-être moom dina ci wax parce que benn ko genre yooyu ba pare di làkk en même temps benn français oh, voilà intellectuel waaw loolu laa jaar naa si sol caaya de mhm. laa commencé ci nawetaani laa commencé wakam sol euh, David Diop laa njëkk a commencé di théâtre après dem wakaam di sol di def ngemb di ngemb ka ay jël jëli fii man loolu laa commencé biir wakaam def yaramu neen di daw sol yëre jigéen yooyu boobu laa commencé mais après ma dem école mais boo demee école nag da jàngal c'est pas parce que aussi que da nga dem école que yaa gën yaa dàq jàng ñëpp non loolu tamit dafa am de. mais doo ko tari. waaw loo doo ko tari mais gis nga gis nga booy dugg ci parfumerie tous les jours nga yeew rek dugg ci parfumerie bul parfumé wu de. Mm. soo génnee da ngay xeeñ. dëgg waaw mooy del fréquenté ñii koy def. del fréquenté si li ñu ne gis nga tey animation bi nga nekkee. fii nga toog di wax. première fois neexul woon. da ngay wax di xool sa bopp si télé bi naan nii ma génne nii sama côté bii nii waruma ko génne nii bàyyi ma xam nga loolu ngay wax mais boo demee léegi parce que da nga ci yàgg nit na ci nekk euh, euh, fréquenter Abba di nga def comme Abba fréquenter Balla di nga def comme Balla fréquenter Kader di nga def comme Kader loolu jàng la mais am na beneen jàngu ijji boo xam ni formation bi c'est loolu laay wax par exemple école des arts man damay jàngale école des arts fu mu rek mhm. que bi day def dafa am convention yoo xam ni dañ ko def loolu comédien la mu am humour am na humour am na stand up stand up bi tamit ak comédie bi du benn boo leen seetloo euh, euh, Marrakech du Rire soo fa demee ñi fay jàll cinq minutes la ñuy jàll cinq minutes yu tàng mais cinq minutes yu cohérent maanaam li nga wax ci commencement ba fay benn lay doon benn affaire bu cohérent lay doon waaw du benn paa woon mu def ni gars yi ree après ñu taxawaat beneen kii la woon après mu def leen moo tax bind bi mu war a am bu ñuy bind Euh, euh, euh, doo juum ba pare doo am problème faute fóot yi ngay def bu buñ ko bindee ba nga jàng ko jàngee noonu faute yi du doon problème ci yow même bu dee yow yaay wax du doon problème je pense que formation rek moo ci des ñun ñu ngi ci ñu ngi ci parce que am na koo xam ne daf si daf si taxaw dëgg dëgg dëgg pour que ñu am ay humoristes yoo xamante ne dañuy dañuy hétéroclite cest à dañuy dañuy mën lii mën lee waaw je pense que loolu ñu ngi ci bientôt dina am. mais tey humoriste ak bi comédien parce que comédien lan mooy comédien mooy ki nga xam ne bu commencé wax ci kanamu nit ñi rek ngay def théâtre ak plusieurs personnes wala yow kese boo taxawee di wax nit kiy seetaan comme moom d'accord ni yow da nga koy nettali histoire moom mu dugg ci biir histoire bi rek yow ki wax comédien la foofu la théâtre commencé walla léegi humoriste mënu loo wax au moins une minute wax dëgg yàlla te kenn retaan ci sa texte am na ñoo xam ne dañu ñëw def compte wax humour ñu def compte mais ay conteur lañ duñu ay humoriste te dañ koy bind stand up dañ koy bind ba pare da ngay mën improvisation abaa mun na ko kii mën na ko mais maanaam yow da ngay nekk sa benn wax di ko wax ba si ak benn waay yuuxu fële eh nga daggal yépp li nga doon wax wax ak moom wax ak moom gars yi ree ba mu neex la nga dellu si waat fi nga ñu bëri mënuñu ko boo leen daggee rek dañuy am problème te ba pare public bi da cee bokk maanaam booy wax sa histoire yow bul nekk ci yow rek après bu public bi tam da leen ciy boole mais grand yëpp anglais na ah. euh, stand up ak one man show yëpp anglais la ba tey dañuy réer ci ban différence am Euh, non benn la. benn la non non non non humoriste bi moom mooy def humoriste bi mooy def one man show. waaw oh, oh, one man show. mën nga def one man show ci théâtre mais maanaam yow sa show la yow quoi yow yaa fi ne commencement ba fin ngay def mën nit ñi mën nañ bañ a ree théâtre la aussi quoi waaw waaw mënu c'est-à-dire yow tu fais du théâtre tu fais ton one man show ba des fois da nga gis nit bu nekk fële def mu ne ah kii moo fa nekk di def ay one man show am quoi mm-hmm. ah, def ay bagage am quoi waaw mm-hmm. mais euh, stand up ak one man show bon y' a pas différence quoi c'est-à-dire la riir la riir c'est-à-dire bi du pour yaraate sax lenn laa mën a wax euh, li nga ko wax nga ko sànq mooy que liggéey bi pour pour reetaanloo nit moo gën a jafe jooyloo nit euh, di nga dugg si ñoo xam ne dañoo dañuy ñëw rek ñàngal nga war a joué wala ñu ñëw xoj seen yi ba fii ba pare yoog géndee diina da ñoom ñoo war ñoo reeree waaw non ñooñu tamit lu cher waaw mën na am da des fois da ngay ñëw li ngay def intéressé wu leen. day sax intéressé wu leen. mais yooyu yaa war a fexe ba ñu indi leen donc loolu tamit c'est difficile c'est très difficile boo demee nag ba reetaan ñooñu nga xam nit moo war a ree ñooñu da leen wax nit mooy mooy ree amul mosoo gis golo buy ree mosoo gis ginaar muy ree nit adduna li yàlla sax yëpp nit rek moo ci ree donc nag bu bañee ree problème am am na ñu dem ba alchimia Euh, alkimiya raan bi ñuy wàcc ñoom. ci la nit ñi soog a ree maam raan seen kii euh, maa ngi réer maam raan laay biti mooy que ne damay dëggal li mu wax mooy reetaan loolu nit ci yaramu doomu aadama ne nit ki neex suñu borom nga doon nit koo xamante ne pour nga reetaan am na ñoom bu taxawee nii nga xool ne rek da ngay ree léegi nag comme abaa dama koy gis bu koy def ci biir public bi rek mën nga cee créé yow loo xam ci reetaanloo ay nit mën ngaa tooñ ay nit ci ci biir public bi nga taxaw mën nga cee mën nga cee créé loo xamante ne nit da ciy reetaan. mooy improvisation waaw waaw ba pare moom fi muy woy Papa Ñaama am na lu mu koy woyee ñoom moom ni mu ko ni mu koy ni mu ko doon woyee. Mm-hmm. maanaam dafa am comédie bu fekkoon dafa ñëw rek woy Papa Ñaama kenn du ree da ngay dégg mu naan papa ñaama fesi ni mi ko ak ni muy def comme ni mu xale. Mm-hmm. boo bu demoon ne bu ñu ko génnee si télé bi yow mag ñi sax dañuy dañuy bàyyi xel ci woy wi di ci toog di ci reetaan woy la mais dafa am comédie. mais mais nag loo am don am don il faut que da ngay dem ñu am yoo xam ni dañ la koy jàngalaat. waaw waaw waaw technique euh, ak ni ngay taxawee na ngay waxee. ban heure nga war a lii ban heure loolu moom. far par force da ngay demaat expérience wala mhm. école ñu mën na ko jàngal mhm. bu fekkee am na ku ne ci liñ dañ koy jël ndax noo def grand wax ñu humour bi amoon démb ak humour ñun bi ñuy def tey mal malgré am na yoo xam ni am na ci mais man damaa gis ne ñun humour nga xam ne ñoo fi nekk ni tey grand dañu gaaw nekk ay star trop loolu moom il faut nga ñëw at ñu ciy leeral ba leer nañ euh, mais am na ku ne ci ligne bi ñu mën na ko jox ci 88 628 20 88 628 65 65 88 676 05 05 88 676 06 06 bu fekkee am na ku ci ligne bi nañ ñu ko jox bu kenn nekk extrait ci Abba Show temps grand bi mën ñoo wax humour bi amoon démb ak umuur bi nga xam ni moom moo am tey ban différence la am ak naka la ñu mën a def ba humour bi tey gën a yokku ah gën a saawoon ba ñëpp mën ci yëg seen bopp bu baax a baax a baax salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. ça va maa ngi fi. yawa. allo. <laughs> wax Aba. ma ne yawa yow la kan. man la Fatou Seye. yow la Fatou Doucouré. Fatou Dieye. Fatou war mu ne. Fatou Dieye Fatou Dieye. Fatou Dieye Fatou Dieye Dieye. noo tudd. <laughs> ah la wax léegi Fatou foo dëkk. baal ma baal ma. maa ngi. fan. maa ngi dëkk Ouest Foire. noo def bañ bokk koñ. ah ñoo bokk koñ ma xam nga koñ de. fan ci Ouest Foire. ci wetu Brioche Dorée bi. Brioche Dorée. Mm-hmm. femme mariée wala situation matrimoniale. célibataire àndu si. àndu si <laughs> na yàlla baax na léegi yow. <laughs> âge euh, kii tu as quel euh, vingt quatre ans. sa âge egg ba combien mu ne vingt quatre ans. waaw. dégg nga. ma loolu yëpp da nga ciy maanu. waaw da maanu léegi euh, wax ñu sa taille un mètre ñaata. dégguma li ngay wax. sa taille un mètre combien. un mètre soixante dix. c'est la te. te <laughs> marron noir blanc chocolat à peu te te noir bu tàkk. ça c'est mon affaire. lii lañ naan ci wolof. sama yëf. nga ni ma. yàlla baax na. yàlla baax na. takk ma rek ma sëyal la sëy man. jaar eh, eh, man takku ma de eh takku ma de. takkuma ma sëyal sëy maam Diarra eh takkuma takkuma. waaye bon eh, amaa lay daw deuxième. eh, eh takkuma waaye yow léegi léegi yow boobu bi la fan la takkuma. xar jigéen yow doo xaar bañ. doo xaar ñu takka la sax. ayaa gaaw damaa jàpp de yow takkuma loolu loolu. eh ma moo bi fan. amaa ubbil ma région la Moustapha Diop dëkk monsieur le maire. waaw fii la maam Cheikh Mbaye dëkk nga xam ni baayam mooy allaaj Jiili mbay mu baax mi loolu dëgg la fii Souleymane mhm. Sar Sara fii la dëkk neex fekk Louga borom laa du mi mhm. waaye fii moom kenn lam laawee eh, maa ngi lay ubbi Louga Souleymane ku baax waaye nii laa def di ñaanale boo ma lay ubbi ma fi avant ma ubbi laa ñaan nekk foofu soog laa ubbi foofu mm. waaw comme tey ñu dayoon rek nga ni ma ubbi ma ca may la Kolda fa la directeur tey dana dëkk. Kolda. bàyyi Zeyna ak Zeyna mm-hmm. bàyyi Badou Dia. Mm-hmm. Kolda. waa jëfa dëkk. Mm-hmm. Kolda. waaw waaw mu ne. quatre trois deux un. ñaata may nañ la cinquante mille francs. yaakaar ah, naa ni loolu neex na baax na mën ngaa wàcc ci suuf ndànk ñu daan la ko jox. yéen tamit mën ngeen na continuer di woote. yéen tamit mën ngeen a continuer di woote te xam ni à tout moment rek mën nañ leen a jox seen wàll yéen tamit yëf bi dama mel ni grand bi ngi wax de dama mel ni grand bi wax ay wax am solo. ngay ngacc fii pare. waaw nee ndax moom mi toog fii mën na woote ba pare. léegi léegi grand li teraanga bi de ñun ñi koy ñun ñii joxe teraanga bi ñii la ñu doon nii teraanga bi léegi grand ci humour la ñuy waxtaan tey humour bi am tey ak bi nga xam moom moo amoon. Euh, waaw bon différence am na différence parce que ñi ñi nga xam ni bëgg nañ def humour bëri nañ euh, li tax mu bëri nag ñu bëri dañu seet ni réseaux sociaux yi télévision yi bëri na loolu moo am parce que dafa naa ñun bu ñuy commencé benn télé moo amoon pour dem fa sax dañuy xool xoolaat boo ngay ñëw toog ñu la ba pare xool li ñuy ñoom seen bopp ñoo koy dagg moo daan moo doon RTS léegi nag bon euh, te bu njëkk ba umur bi ñu doon def dañ koy def si cassette. après nga jëng yóbbu sa kër te du doon cassette boo xamante ni euh, Talla Dia ñu ko doon distribué. non waaw waaw. non day parce que amuñu bopp patience. waaw ñoom temps ñoom Lamp Fall production. Tajaañ xaw ma lan. nga dagg RTS xool xoolaat ne la yooyu yooyu la quoi. loolu léegi la gën a yomb. waaw li mu daan gis mooy que ne génn télé yombul woon. dëgg la boo mosaan di dégg ñu ne rajo leen ko wax wala solee leen ko bind da nga koy gëm. waaye léegi technologie bi fu euh, def comédie ak am na ñoo xam ne léegi abaade wax siiw dafa yomb. boo xamee mm. connexion li nga siiw ak li ngay siiwee. Mm-hmm. siiw yomb na mais ni ngay siiwee. nit day siiw ba pare feer ci ni mu siiwee. dëgg la siiw gën na yomb léegi mais problème mooy yàgg ci. dëgg la loo ci mën yàgg. waaw boo fekkee ne liggéeyuloo da ngay siiw léegi eh, bon quelque temps mu wàccaat boo seetloo léegi ñëpp ay humoriste lañ ñëpp ay comédien lañ TikTok mm-hmm. TikTok lañ ne waaw voilà parce que boo ko yoree mën nga wax lu neex mën nga def lu la neex amul amul marge cest à amul ñu naan la noo fii ngay bul weesu fii bul weesu fee moo tax ay saaga di ci bëri mm-hmm. dañuy bëri dañu bëri wax loo xam ne sax am na ñoo xam ne dañuy soof mm-hmm. dëgg la dañuy da nga koy xool mu soof quoi kii pourquoi ça est au moins trois mois je loolu la ñu war a def dañu waroon am benn police culturelle boo xamante ni boo defee yëfu dof yenn yi dañ koy dañ koy nangu fan waaw loo xam ne neexul te eh, yow eh, mais moom sa téléphone yow yaa moom sa connexion yow yaa créé sa contenu def si mais bu ko confisqué dina metti tamit waaw non yëpp réew mi la tamit yëpp réew mi ñoo ko bokk am na yenn yenn yoo xam ne est-ce que que kon métier yu bees yooyu fekk si humour bi genre tiktokeur ah youtubeur ñooñu fekk si fekk si humour bi est-ce que kon du dafa ñëw dafa ñëw kon yàq stand-up bi. waaw ma loolu loolu ak kii stand-up c'est-à-dire mën nga def youtube mën nga nekk youtubeur te doo nekk stand-up am na youtubeur boo xam ni dañu doon def dara man maa ko woo ma ne ma grand scène bi daal bàyyi noonu rek mu bugul moom bugg ko mënu ko peut être ci ñenn ñoo xam ne dañuy bëgg seen waaw mais am nañ peut être que mën nañ seen am na si ñenn ñoo xam ni dañ fi bàyyi kii nga xamante ni peut être yëfam seen la bàyyi fi kii di seen bàyyi fi kii di seen mais ñu dem ci youtubeur boobu parce que moo ëpp audience wala moo ëpp tour wala moo ëpp nangam waaw le choix la rek mais du yàgg c'est yooyu mënul yàgg par seen seen la rek hmm. te seen moo gën a difficile moo gën a difficile parce que lee mën nga couper après dagg fii ne non bii baaxul xaaral ma defaat bu baax bii baaxul xaaral mais fii seen fii boo fi yéegee boo waxee nit ñaa ngi nii toog. boo boo joué benn sketch sa braquette ubbeeku mun ba ba mu jeex mënoo too si delluwaat. dëgg la nit nañu ree nga foog lépp la ñuy ree ab ah, gis naa loolu koo xam ne braquette am la nit ñi di ree quoi. ree nañ moom xax moom pour moom moom moo toj it réew mi. Ah. mais mënoo ko mënoo. braquette bi dafa ubbeeku ah, waaw <laughs> non daa am la waaw <laughs> ah, mais après loolu mënuloo ko dagg. dëgg la bu doon dañ ko filmer dañu ne yee saa yow kon lii bàyyi ñu effacé lii xaar ñu def donc euh, affaire yi ñorul benn fii moo gën difficile dama la koy jox même si si série yi ñëpp ngi joué série koo ci indi fii du joué ku taxaw fii du joué parce que jeu yi duñ benn. pour nga reetaanloo nit aussi da nga koy préparer ba pare am loo préparé wul da leen di boole dangay ngay am loo préparé ak loo xam ne préparé loo am na loo xam ne yow boo ko defee yéen ñii da ngeen koy def fii boo ñibbee yow sa bopp boo koy seetaan yaay ree da ngay ree parce que dañ bii instant bi affaire bu neex moo génn sama xel bi quoi ñëw parce que tey loo ko xamoo ko day ñëw c'est l'improvisation loolu moo am euh, bu njëkk ba nag yëpp amu si woon dañ naan reeloo pense Babou Faye c' était un comique c' était un humoriste c' un mm-hmm. comique cest dire li muy def day nekk comédie ci théâtre bi day nekk comédie moom ci comédie Lamarana c' est un comique c' un comique mm-hmm. tu la rek man pour man loolu la mais léegi li nga xam ne moo war a développé tey comme yàlla def na ni bëri nañ ñoo xam ne bëgg nañ ko li ko war a développé dëgg mooy genre euh, show yu mel nii mais show yi dañ ko war a préparé mënuñ ñëw rek jouer mënuñ mm-hmm. ñëw rek bàyyi nit ñi indi li la neex des fois nga toj sa koñ def koñ la yem comme public yi duñu benn mais public bi plus large la public bu monde bi la léegi il faut que ay nit ay experts yoo xam ne xam nañ li nu mu demee defaraat ne non lii nii boo ko defee waa waa monde bi dinañ ko dégg lii boo wax boo ko waxee nii waa waa barñi rek ñoo koy xam ñooy xam la nga wax xam nga tey bu ma ne amandaw tinga xam naa amandaw tinga waaw amandaw tinga ñi ko xam bëriwul ñu ngi wax ni ñëw waaw waaw moo tax su ma amee public bu barñi tëngéej eh, eh, yoof ma su ma waxee aw seen maam ala amandaw ti nga waaw yenn ni ngeen nga donc public public yi ñoo bokk yéen doo leen bokk donc mais léegi boo bëggee amandaw ti nga boobu noonu ñu mun ko wax dans le monde il faut que mu am koo xam ne day ñëw présenter le personnage mais grand mais yaa ngi toog di wax euh, booy yëpp toog nii ñëpp di seetaan ñëpp di déglu donc donc bàyyi nañ li nga xam moom lañ doon def ci biir ñëpp génn di seetaan mooy nga xam ni kon ñun ñëpp am nañu envie et que soxla nañu am professeur yow grand kon yow da nga war a xam ni waroo sax toog ñu lay woo yow da nga war a ñëw di jàpp ci fii yow ah, xam ni yëf yi parce que booy yi bàyyi nañ répétition bi ñëpp ñu ngi nii toog di seetaan euh, parce que ñu ngi ci jële loo xam ni peut def ñaar waaw moom waaw wareefam la bi si jiitu mooy fépp fuy événement humour am mu dem teg ci loxo moo xam muy Abba show moo xam muy Pathé show muy comedy club muy nangam ñu invité koog ñu bañ ko invité mu teg ci loxo ah, xam ni missionnaire la war a nekk non non dafa bëri principe mais principe am yooyu moo lay def nga existé beneen bi beneen bi des mooy ibbi na académie de théâtre formé ay nit ci théâtre ba kenn ku nekk mën a naawal sa bopp mais na ibbi académie humour ñun humoriste yeeg ñeneen ñi nekk ci ginnaawam ñeneen nekk ci kanam dem jàngiwaat pour bu boobaa combat bi muy wax nii mën a avancé ñaar yooyu mooy sa wareef mooy sa mission. kade léegi léegi euh, dañu dem xooli benn élément euh, ci humour Abba Show Euh, élément wu euh, aba aba show bu ñu ko waxee dañu ne humour la bu temps yi humour la bu léegi donc am na différence ak humour bi nga xam ni amoon na fi donc grand bi dina wax euh, li nga xam ne la ñu war a yokk ak li nga xam moom la ñu war a wàññi am nañ élément bu ñu amoon sànq bàyyi ko ñu dem xooli beneen élément après bu ñu paree dem xooli beneen élément balaa ñu tëj suñu émission ma may ñu benn élément rek élargement aussi c'est ñu xool ko te ñëwaat léegi ci plateau bi ayca ah! quoi dégg nga baal ma mais Radia dañ la fee indi parce que nit ñi dañ la bëgg. Eh, dañ la maa bëgg. waa de ah ah nit ñi maa bëgg. Eh, eh, bu may defee loolu dégg nga xam nga sa ndel su tawee dina taa ba. léegi léegi yow fi toll nii léegi yow fi toll nii yow dañ lay laaj yow. léegi yow dama lay laaj yow lan moo tax yow sooy wax doo wax naan ngay wax di yuuxu. Ah, <laughs> mais non ñu dañoo gis ne yow booy wax da ngay wax ci kaw yow yow boo yuuxoo par bu ñu la laajee yow da ngay fen nga ne yow du yow yaa yuuxu waaw yaa ñëw ni nga reetaane waaw waaw mu nga reetaane ah waxal man damaa bëgg a reer waxal dama ñibbi. da ngay reer. damay reer. mais garaaw kon mën nañ la bàyyi kon nga dem. <laughs> man damaa fàtte sax li ma war a <laughs> wala ngeen woote ci 78 euh, 34 41 63 wala ngeen def 77 655 51 80 ngeen jël seen ay billets Abba Show euh, c'est vendredi bi vendredi bi ci topp ak vendredi bi ci toppaat entrée simple 5000 VIP 10 000 yaakaar naa ni xam ngeen ni les places sont limitées et tellement limitées ba nga xam ni boo yéexul a ñëw rek euh, mën nga bañ a euh, participer ci li nga xam ni moom mooy Abba Show 3 dates waaye 3 équipes yoo xam ni benn bokk ci sa morom ak de nouvelles têtes ay bopp yu bees tax ni dañuy répéter léegi bi day jeex léegi. léegi léegi nii euh, ma bàyyi grand bi mu wax ces mots euh, de benn mot la wala trois wala quatre mais ba pare wax ñu naka la ñu war a def ba moom mu ñëw dimbali ñu. waaw ah. surtout waaw ah. surtout <laughs> ci li ñu wax léegi ñaari sas yooyu. waaw lan ñu mën a def ba yow nga ñëw dimbali ñu. ci wàll yëpp nag. ci wàll sketch yi ci wàllu écriture yi. waaw ah, ñun moom woowuñu la ñun dégg principe yi ñun woowuñu la ñun woowuñu la envoyé wuñu la SMS. nañ <laughs> laa ñaan solennellement ci kanamu Sénégalais yëpp di seetaan ñun équipe bu Abba dañoo soxla sa ndimbal soxla sa expérience soxla sa connaissance. soxla mm. sa écriture. soxla sa teg loxo. ba mm. doole adduna yëpp a ngi nii ñun ñoo la ko ñaan. am naa droit doole am naa droit am naa droit tey si je suis là. c' est grâce à Kader. parce que moom laa doon liggéeyal ak wileeg ñoom déeg ñooñu. mu yóbbu ñu anniversaire dina ma neex ñuy jouer. yow tombé nga ñëw di jël si salle bi pour sa événement just for you ñu xaar loola cinq minutes bi nga xaar nga ni da ngay toog seetaan spectacle nga tombé suñu spectacle ñu seetaan nga pare woo Kader mi pour ñu fi donc bu yàlla defee ba ma dem nekk tey directeur artistique fii tey man maa soxlawaat ndimbalu Kader fii pour mu épole ma pour loolu ñëw loolu man la bokkul ak nag léegi équipe bi yëpp ñaanaat la pour nga ñëw fi muy ñaar ak tamit wareef Samba Show ca France. waaw ak bi may dem ci Marrakech du Rire. très dafa jàpp ñi nga xam ne bind nañ sketch yi bi ñu répété. yaa nga fa woon toog dañ laa woo soxla sa expérience répétition yi. très bien mais joué public ba yuuxu nañ ñëpp kontaan. mais comme li ma li ma bindoon. non non loolu <laughs> garaaw loolu garaaw. loolu garaaw loolu garaaw <laughs> dañ ñu ma woon rek ma toj ko bi ma ñëwee ñoom ñëpp ñu mer ne ma liñ ma bindal ba xamee nii la toj. ko toj naa respecté code de la route. en tout daal ko indi mer bi keneen mu ngi noonu. keneen wax. waaw en fait damay damay. may rebondiraat aussi si li ma waxoon ci commencement li tax ma ñëw damay sawar trop ci ñëw loo xamante ni euh, day euh, defar humour Sénégal parce que. yàlla dafa def xëy na mën na position boo xam ne à chaque fois nit ñi dañ ma wax yow la yow la yow la bon man la am naa peut-être tuuti part de responsabilité mais lépp du man yàlla la parce que yàlla nag mooy doxal mooy doxal ay ay ay yëfam nu mu war a doxee quoi euh, je suis très fier et très content de ñëw di gis lii e di ñaan yàlla mu yokk booy ñaan yàlla mu yokk aussi da teg loxo pour mu yokk pour man et comme j'ai warul yem toujours fii il faut que ñu international Abba Show mi ngi mais il faut mu international pourquoi je international mooy que euh, ñi nga xam ne joué à il faut que ñuy indi ñeneen ñoo xam ne nekkuñu Sénégal ñeneen ñuy def beneen di làkk francais di làkk leneen ñoom ñuy frotté confronté wu ak ñoom di xool seeni style parce que koo fi gis muy joué mi ngi cherché style am. Mm-hmm. boo cherché sa style nag ba trouvé ko rek. waaw c'est am quand même loolu. Ah. waaw waaw boo cherché sa style nag da nga koy gis ñu am ay style comme tu dis style yi bokkul mm-hmm. man man sama humour du c'est du ma tëb di dal sama humour si si si texte bi la si langage bi foofu la am na ñoo xam ne seen humour xam nga comme ñabaxi humour si kanam bi si kanam bi la def man man ah man man daf may def ree mooy sama humorisme man man mënu ma ko muñ. parce que je sais que non ñamaxit ñamaxit c'est le meilleur. mais comme li nga wax nii non non non. ñamaxit non ñamaxit c'est le meilleur. man maa bëgg a yokk problème bi. comme li nga wax comme li nga wax mooy moo da ngay gis ay émissions yoo xam ni dañuy takk rek fay. man ñamaxit loolu laa ko jooyal gannaaw ñamaxit fi mu tàkkee ba ñaan ñamaxit tàkk na ak fi mu fayee benn la. mais yow fii tàkkam waaw ah, arrêté bi nga ñëwoon ci plateau bi mais fi ñu toll nii lan nga ñuy wax ñun loo ñuy tontu ci invité bi nga invité pour nga ñëw yokk ñu euh, li nga xam ni waaw waaw waaw waaw waaw waaw

man waxuma baaxul parce que baaxul da ngay def lu baax mais bu dee mu gën a baax mais bu ñu la waxee baax na da ngay wàcc te dañu tàmm ni yow comme li ma wax ñamaxit léegi gisoo ko dama koy wax lii rek mu daw fii yëpp ñëw toog. ñamaxit baax na lu muy def neex na rek mu bëgg a traversé. fii yëpp ñëw toog te li moo ñuy dal li moo gaañ tuuti mu gaañ. mais nag grand mais nag grand ñun humoristes yi ñun am nañ problème. boobu euh, noonu il faut ñu xam ne man maay présenté Abba Eh, bu ñëpp répété ba pare man ak Balla ak Wally suñu problème mooy nekk man ak mooy li nga def yëpp da dara baaxu ci te man maay présenté donc man ñëw ma di jouer sketch man damay jël ay ay inter ay intervalle laa jël kii bu wàccee man maa yéeg lii mu ne ma noonu lii mënul ñëw fii lii mënul ñëw fii alors que am na ay boy yoo xam dañuy presté mhm. bu ñu ñëwee ñëwee ne lii baaxul dañuy gis seen bopp mhm. et c'est très dangereux faut que ñuy nangu aussi que yow miy joué yow mënuloo wax baax mhm. man mii di joué su may préparé dara il faut mu am ku toog di ma xool mhm. ak ku mënti doon nag parce que mu aay mu ñàkk aay man bëgg naa nga may wax sa avis man mhm. parce que man daf may yokk parce que li may wax mënoo neex ñëpp mënoo fi taxaw nga neex public bi yëpp dina am kenn koo xam ni neexuloo ko mën nga sa dix minutes yi nga fay def da moom day mel ay heures yi heure la day bëgg nga dem mais boo bëggee loolu bañ dañ da ngay xool ku mel ni moom ku mel neneen mu déglu la xool ne la li baaxul nga jël moyenne bi saa nga mën a mënoo neex ñëpp mais au moins dina am di nga cof cofaat quoi voilà. tàggatoo tàggatoo naa. Eh, kii ah, maa ngi ah. nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen gërëm aussi ci invitation bi di wax ni waaw ba en fait dañu dañu xam dañu ko bëgg ba nga xam ne bu ñu ci wax duñu ci jeexal. dañuy dafa nekk su ñun quoi parce que man mii j'ai choisi quand même d'être man defuma leneen lii mooy sama métier moom laay xëy di ko def ma wàcc nit ñi heure bi ñuy wàcc heure boobu laay wàcc pour ñibbi sama kër waaw dafa du ma def leneen quoi comme Balla je suis pas commerçant voilà. Ah, waaw waaw commerce. Eh, eh, bi ñu lay bàyyi yow tamit nga de dem nga daal dem eggal fi nga nekkoon donc na ñëpp ñii fi ñu toll ñii tëj ñëpp micro bi la ñuy tëjee ndax yeneen micro yëpp laa fay. xaaral xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw yenn micro yëpp laa fay. waaw mais abaa euh, euh, euh, ku jaar ci taatu garab guddi xam la muy meññ da nga faa jaar bëccëg. mag ñee ko jàngal waaye moo jàngal ndaw ñi guy gu daar gaa ngi gune yi ci moom leen war a jàngee yëg kon donc li abaa wax rek lay ñëwaat ñëwal nga jàppale leen te xam ne boo ci tegee loxo rek. Euh, def nga li nga xamante ne mooy sa wareef mu doon loo xamante ne ñii nekk bi nekk ci réew mi dañ leen a war jàppale parce que réew mi bëri stress euh, ku nekk xam na ne doomu aadama li mu li li gën a danger ci boom bokk na ci stress day dagg karaw te fu mu la fekk waaw day dagg karaw yow yow waxi karaw yow amoo karaw yow yàlla dimbali na la amoo karaw waaw yow ñi am karaw leen yor yow lu muy dagg ci yow ah day <laughs> waa may gërëm ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan aba di wax ne tey jii Euh, lamp moo ma jox lii ma sol moo nga fële ca Sali di nuyu ba ma nga xam ne moo ne ci bitig ba ñu doon ay xale yoo xam ne samay xarit lan ñu doon ay nit ñoo xam ne su ma ñëwee Mbuur ci ñoom laay nekk may nuyu ñi nga xamante ne ñoo nuy béggee émission bi yaakaar naa li ma la wax rek doomu aadama yi bëgg nañ ko te saa su nekk bu ñu toogee fii rek euh, bëggal leen moo tax ñu koy def kon def loo xam ne wax nañ ko fi loo xam ne rek ñu ngi jéggalu di masawu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo doon na mu ngi lay seetaat bu baax di la masawu nee na nga Coca Cola nee na nga naan Coca Cola <laughs> bu subaa euh, bu subaa euh, seetu bi dina am ki nga xam ne mooy invité Boucher ak ñi nga xam ne ñooy waa Aba Siko suba sport la ñuy waxtaanee dañuy jël ki xam mooy Boucher. mu Balla Gaye buuse mu Géejawaay ak Abasiko waa Abasiko suba la ñuy euh, ak booy bi nga xam ne mooy Toch ak équipe bi nga xam ne ñoom lañuy ñuy àndal yëpp ak Abasiko donc Abasiko suba ak buuse ñoom ñooy ñëw ci seetu Sénégal ay fi ngay tëjee fii. <laughs> merci beaucoup Aba di remercier bu baax a baax suñu invité bii tonton Kader mhm. en plus di ko féliciter ndax nee naa la moom monument la euh, référence la vraiment bi ñu nekkee xale ba léegi ñu ngi lay seetaan mhm. vraiment euh, ngay def lu nice di def lu rafet defoo fi dara <laughs> defoo fi deli macha allah. kon merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. bu baax a ki nga xam ne moo di Mame Rane ak les amis de Betty Love maa ngi leen di remercier bu baax a baax Fatou Black Hair nee naa la man ak yow fépp maa ngi lay bu baax a baax mooy borom jëppal di remercier bu baax a baax waa salon bi yëpp kooku nga xam ne moo di Maam Diarra Kumba Khadija Fala yéen ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax aw ma seen fay xale bi moo demee ku ci nekk day daw di ma defal sama bop vraiment merci beaucoup maa ngi leen di remercier bu baax a baax waa Black Hair waaw bu waxee rek dama lay aji di kontaan ci yéen ñi doon seetaan ñëpp ah, sant nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen bu subaa ak jàmm euh, li nga xam mooy seetu Sénégal fii lay xewee Boucher euh, <laughs> ak Awa Chico yow la ñu invité jërë ngeen jëf bu subaa ak jàmm incha allah jaajëf jaajëf. di Sénégal dëkku gi ñay jaay mooy sunu gaal. te ci julli ma bësin